jërëjëf euh, mbokki internet yi ni ma leen ko waxee woon rek sànq bu leen bouger ñoo ngi ñëwaat ndax dama wax ni tey la korité korité nag bu ñu ko waxee mooy bëggalante ci wàllu diine bi yoon nag ñu am plaisir daje fekk euh, ëtt boo xam ni kenn doot leen présenté muy sëriñ Abbas Laay di suñu xarit te teewoon fi waa kër Seydina Imaamullahi alayhi salaam damay wax faral saa sune rek. ne bi bàyyi laay taxawee fii ci waax bi na yaa marsali insi wal jinni inni rasulillahi ilaykum boobu ba tey jamono weddeegu ko boobu ba tey nit jëlagul sa baaram teg ko ci dënnam boobu weddi waxam jooju xanaa rek di ziar xalifa bu tedd bi Seydi Abdoulaye Thiaw Laye di ñaan yàlla yàlla dooleel ko yàlla sàmm ko defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim ndax moom dañuy wax ni fédérateur la Seydi Abdoulaye Thiaw te bi mu koy def defe naa ni boobu doonagul xalifa Seydina Limaamu kon rek li ñuy def rek mooy nuyoog Abbas bu ko defee moom itamit rek mu présenté wu euh, ñu nuyoo leen hymne bi maanaam ni ko suñu baay Ablaye Thiaw daan waxee rek mooy bu ñu ko rek maanaam mu joxe hymne te lu ci jiital hymne Seydina Limaamu daan jiital hymne ëtt kër ju ne ba noppi ne acca boog kon boog nañu maanaam nañu nañu joxe ci lu ñu fi Seydina Limaamu bàyyi kon xanaa Abbas ñoo ngi lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. ziar naa la bay laay yow ki doy loo sabur woonoo ziar naa ñànd ak yow digeek yow te am warma ziar naa la bay laay leeram ya ngay

ziyaar naa la yow Baay Laay ziyaar naa ci say saaba ziyaar naa la Baay Laay yow mi doy loo sa buur woonoo ziyaar naa ñaan dak yow digeek yow te am worma bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allazi la tudrikuhu al-uyun wala tumassiluhu az-zunun wala yalaquhu raybal manuun wataahat fi kayfiyati azamatihi laarifuun laa yuxaalu ayna kaana wala kayfa kaana wala mata kaana wala ayna yakuun wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammadil imaamil mahdil muntazar shajaratil asli nuuraaniya wa lam atil qabdatil rahmaaniya wa afdalil xalifatil insaaniya ixwatul islaam ixwatul imaan nuxayikum bi axsani taxiya alaa wahiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi nga xam ne ñoo janoog ñun duñu seetaan ñu ngi leen di ziyaar gën jaarafet ci ziyaar di leen ndokkeel ci bésu kori bu tedd bi di ñaan yàlla lépp luñ ko jaamu woon ci weeram wu tedd wi yàlla nañu ko yàlla nangul macha allah di ñaanal sit bi nga xam ne mooy Sénégo nga xam ne ñoo ñu may occasion ñu mën a véhiculer message ub limaamul mahdiyul muntazar dañu leen di ñaanal yàlla barkeel leen jàmmal leen te suturaal leen yëkkati leen ba ñu yëkkati ba faw nuyu itam suñu naataangoo bii di buur du ko ñaanal macha allah yàlla jàmmal ko te suturaal ko ñaanal itam équipe bi nga xam ne moom la ñu fi fekk te biraalaay macha allah jokkale na ak ñoom di ziyaara wëllëre yi nga xam ne ànd ak ñoom ñuy taggkatu yonent bi sëñ Maxtaar Jóob a ngi nii macha allah di ko am taxawaay ci géewi Sidina Limaamul Mahdi Muntazar noonu itam Babacar Lay Jóob itam muy ku am taxawaay ci géewi Sidina Limaam ma ànd ceeg ñoom kon ziyaar nañu leen ndokkeel nañu leen ñaanal nañ leen jaajëfal nañu leen jërëjëf euh, Sina Libaas yow tamit ñu di la delloo nuyoo bi Sina Baas Euh, di ndokkeel nag sama xarit ba Seydina Libaas Laay euh, moom day sama xarit di di kenn ci man xanaa di ko wax ni ko rek maa ngi koy balwax di ko wax yi euh, ak di ziar sama xarit bu sama sop boobu Seydina Libaas Anne bu Cambérène moom tamit ci taxawaay bi mu am ci appelu Seydina Imaamullahi bi moom tamit di ziar ñëpp di ziar xarit deg soppe yi xanaa rek sëñ sëñ bu ñuy engagé suñu question bu njëkk mooy dañu gis yéen laay nii Corée fi ngeen ko teg euh, laaj la woo xam ne dañ ci sawar a tontu ndax boo xoolee lislaam ñaari feet yi rek la muy feetub kori ak feetub tabaski bokk ci feet yi nga xam ne ñoo gën a rëy ci ay feetam ndax boo xoolee alquranul karim ñoo ngi ko wàccee ci weeru koor boo xoolee itam alxuraanul karim ñu ngi ko tëjee ci tabaski moo tax mën nañu wax ne kori màggal nañu ko ngir teddaayub weer wi ak teddaayub tàmbalikub alxuraanul karim moo tax événement la boo xam ne dafa am solo rawatina nag yonent bi nga xam ne yàlla daf ko yónni woon ci lislaam bi mu feeñaat ci sawub jant mu ne mooy mahdiyul mahdi yi moom bi mu ñëwee nag mu am solo goo xam ne jox na ko weer wi moom lu jiitu sax bés bi dafa njëkk a màggal weer wi ci ne guddi gi nga xam ne moom la ñuy wër ci biir yéen jàppaleen ne guddi gu jot ci weer wi guddi laylatul xadri la moo tax ci gox goxaanu laayeen yi boo fa demee da ngay fekk zikrullahi ci góor ak jigéen mag ak ndaw comme ni ñenn ñi di ko defee ci qiyaamul layli ñoom nag comme wala zikrullahi akbar ala bi zikrillahi tatma innul qulub bay laay fala doore nag ba ñëw nag ci bés bi nga xam ne bi mu bi weer wi tolloo ci fukki fan yi ak juróom ci la commencé nag bind ay bataaxal jëmale ko nag ci muqaddamu laayeen yi ngir salaat seeni pas-pas loolu moo ngi ko digaloon Cheikh Makhtar ngir lan dëgëraat ñu dëgëraatal seen pas-pas bi ñu am ci limaamul Mahdil Muntazar ak ngir mi nga xam ne indi na ko oote oote dëgg bi nga xam ne dootul fay waaye ci bésu kore bi itam lay woowaat muqaddam boobu ku ne mu ne indil sa njaboot ngeen fekk ma fii yoof ma xool ndax la ma leen dénkoon la ma leen joxoon yéen a nga ca walla déet moo tax loolu ba tey boo ñëwee ci pencub yoof ca laayeen da ngay fekk ba tey ñu ngi dundal bés bu tedd bi bésu kori bi macha allah ci góor ak jigéen ci njàngale ahlu beyti seydina limaam mahdin muntazar ginnaaw mbubbëb ragal yàlla bi nga xam ne moom la ñu bëggoon mu set mu raxasu ci weer wi kilifa yi xoolaat ndax mbubb moomu set na ndax li leen weer wi jàngaloon di ngeen ko wéy wala déet moo tax Seydina Limaamu jox importance weer wi te mu def ci itam nag ay miracle yu bari nag moom Limaamul Mahdi Muntasar macha allah nga xam ne dañ daan wax ni moom Baay Laay ci fam ak mbaaxam daawul sax sol dàll ci bërëbam bu tedd ba waaye bésu kor yi lan daan gën a gis mu sol ay dàll ngir lan mu ne damay màggal bés bi ngir fa mu toll ca man ba tey njaboot gi ñoo ngi koy taxawee. Euh, ñu maanaam ñuy jàngale ci taarix rek euh, ci xutba bu rëy boobu mu defoon ci bésub koreem gu mujj googu. waa xam nga lépp dafay dellu rek ci xijjatul widaa bi nga xam ne mustafaa defoon na ko démb euh, taxawee ci Arafa xutba xutbaam bu mujj ba di tàggoog arab ya ba aaye ba wàcc al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diinan am benn waykat bu ñu naan libaas ñang mu ne ko arab du jël wolof déju ndax gëm ñi ñëpp a jànguñu ñii mel ni man dañuy béjoo werante charti Mamadou mu ne lam yonent bi xutboon ca xijjatul daa moom laay tàggatoog yéen ci sama xutbab kori bii boobu nag ma ngay waare waaye ci na muy waareek na muy waxe mu ngi xamal ne gaa ñi man lépp a jeex na mission bi ndax bi koor gi jàllee ba mu teg fukki fan ci la limaamul mahdil muntazar tàggu saxaabaam yu tedd ya ginnaaw ba mu waxee ca biir xutba ba na ngeen yëg ni na ngeen xam ni man limaamu man na am jegeetuma leen gisatuma leen déggatuma leen waaye ma boroom ma ma yónni woon jege na leen gis na leen dégg na leen muy eh, tàggatoo tawxiit boo xam ne saxaaba yi xam nañu ne kii mu ngi dem moo tax bu ñu yegsee ci xutba yooyu da gis lu bari ci laayeen ni dañuy fàttali ko mujjantalub xutba limaamul mahdi rongooñ yi di dal ci dënn bi dëgg jooju yàlla joxoon arab du jël wolof dëju bilaay arab du jël wolof dëju nag yi ñépp jàng ñi mel ni man dañuy dëjoo werente sarti moom ma du jël wolof ñépp a jàngu ni man dani werente sarfa moom ma arab du jël wolof dojoo ndax gëm yi ñépp jàngu na ni man danuy werente sarfa moom ma dooy arab du jël wolof da joor ndaka mi ñépp jàngunoo ñi mel ni man dani da joor werente sarfa moom ma dooy buur li tax sax libaas ña ngi way loolu li tax sax libaas ña ngi way loolu ndax araab yi ci xijjatul wida Moustapha ci arab la wax ak ñoom mm-hmm. waaye Seydina Limaamu bi muy xutba wolof ndax kooku doon xutba xutba yu tedd yi di teg aaya alxuraan yi di ko génnee ci alxuraan bi di ko faram fàcceel jaami yàlla yi jàngul bindul nabiyul ummi la jàngul bindul booba ma ngay waare waaye ci làmmiñ wi nga xam ne moom lañu xam moo tax ajam yi war a nag ci lañu leen defaloon xijjatul daa ñoom araab yi ajam yi am loolu ajam yi kañ lañ ko am bàyyi lay ba muy tàggatoog ñoom ci xutbaam bu mujj ca kori ba tey laay moom mu nekk sunna soo xam ne ba tey dañu koy dundal fii ci Yoff ba tey sunna bi dafay dund te loolu sax dañuy am occasion ñaanal euh, ahlu beyti Seydina Limaamu gi yëpp waaye itam ñaanal maam libaas mi nga xam ne moo koy taxawe ndax ndax maam libaas bu Seydina bakar nga xam ne kooku itam baayam ba mu koy sol loolu lu ndaw la ginnaaw ba lettre ba ñëwee loolu beneen euh, waxtaan la waaye da gis ne maam libaas bi mu ñëwee gis ne sunna bi ñenn ñu ngi koy xaw a sàggane ci la jógaat solaat ay dàllam woowaat muqaddam yi woowaat axlu beyti bi ba tey jii fu laayeen yi nekk ci guddi gi tey da gis ne ñoom ñëpp ñoo nga ca yoof wara a zikkar ñoo nga ca yoof te nag la ca gën a yéeme mooy day waxtaan bañu salaatu ñu dem julli ronuwaat tànt bi jàngaat alquran ñu defaat xatmu bi waaraat leen soog a leen yi kon nag li ñu naan kori bi dafa bokk ci weer wi am na ci ñoo xam ne tey jii commencé nañu waajal ni ñuy dundalee bés bi waaye ci beneen anam ci beneen fànn dangay gis publicité yi door na sax commencé na ci tele yi spécial korité spécial korité ci beneen fànn waaye bàyyi laay li mu daan bañ ba mu téye kori bi ak saxaabaam mooy fa inna kansa damin tufsidu saxfata laban kazalika xalil min alxaram yusidu kasir min alxalaal mooy nga jël kaasab deret yo euh, sotti ko ci paanab soow nan ngay dundalee guddi yi dundalee bëccëg bi ba kori bi nga dal di ko màggale ci beneen anam bu dul zikrullahi nga xam ne alxuraan ba mu naan kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala min xablikum laallakum tattaqun euh, mbubbëb ragal yàlla bi ràppoon mu bëpp ragal yàlla bi nga xam ne dafa xotteeku woon mu bëpp ragal yàlla bi nga xam ne ñenn ñi sax dañ ko rafle woon moom la suñu boroom bëggoon solalaat jaam yi ci weer wi léegi nag ca kori ga nag la ñuy kase war a yóbbu dossier yi yow fa ñuy yóbbu dossier bi nag nga yàq ka ci yoo xam ne yu kéemaane la moo tax bàyyi lay téye woon ay saxaabaam ci guddi googu muy guddib kori bi téye ay nitam ci njàngale waaraat leen rawatina nag muqaddam yi mu tasoon ci réew mi ñëpp a ñëwaat ku ne mu ne la pas-pas ba ma la joxoon ndax yaa nga ca wala déet kon yal ñu yàlla fayal bàyyi la jërëjëf Limaamu Laay Laay yow mii xàllal yoon lu lislaam xamal jërëjëf Limaamu Laay yow mii nu xàllal nu lislaam xamal nu laaw buur kii yayoo sàbba bu dul woon Limaamu Laay mi leeral ngirum lislaam lëndëm sànq waayeef réer ne kon kenn du taal taal ba ngay feeñ ji na jooy na ci saw gafar na nu màndargaam ya fay nooye ak taal ba danoo réere woon yàlla booba gëm samp yaak tuur ya ku jaaxle du ñaan buur yàlla mi moom tay ak démba lu dul fam mindee fam yàlla yey rey ca kuur yaak di ndëpp ak di sampandaa yenuy woowe ay xamba nga ñëw yàlla jox la mboot ma ca laa ilaaha nga toj mbooleem xërëm yaag fay xamba kon fa ak la lay sax leen si zikiril ilaahiyeen ñi gëm yàlla gëm baay ne ñin moo di yaaram ba solo ci feeñam ci la gëmee ne shirku ak taahud lu ñu war a jële la ci réew mi mm-hmm. ba toj tuur ba toj xàmb ya jële fi tuur yi sempi kuur ya kon ba tey day des ci jamono est-ce ba tey xam nañu kan mooy Seydina Imaam Allahi waa góorgóor gu ba tey am na ñu ko réere nga xam ne laaj la woo xam ne nag laaj bu ma neex la lu tax gaa ñi réere Seydina Limaamu alayhi te dama daan wax ni wa mahma tatabaaral xaraa'iqu wal axlaamu mutahaddisatun anhu aazifatu anasidi azamatihi fa sa tazillu jamian ka an lam tabrax makaana walam tuxarrik bil xawli lisaana gis nga buur bu ñu jëloon xalima yu sell yu tedd boroom xel yu rafet yu tedd yi di bind ci mbaaxu góor googu minal mahdi ilal mamaati doore ca ba mu nekkee gune doore ka ba mu nekkee waxambaane ba ba mu faatoo dañuy gis ne zéro fët la xalima yépp dinañu bind mbaaxam ba jeex te duñu bind géeju Seydina Limaamu cig mbaax li fi nekk mooy dañ doon xaar Mahdi yu ndax dañ ko annoncé woon Moustapha waxoon ne ubashirukum bil Mahdi fa innahu yaati fi axiri zamani ala siddatin wa zilzalin yasau llahu lahu l arda adlan wa qistan yuqassimu l maala bi sawiya bayn annaas muy xadis boo xam ni abu sadiqi naaj moo ko wax mu ngi naan maadiyu day bu ñëwee dafay fekk jamono gàkk dafay fekk jamono tumuranke dafay fekk nit ñi pas-pas yi daal di réer mu ñëw nag war a yeesalaat ruu yi war a defaraat jikko yi yàlla yaatale ci moom dëgg ak maandu waaye mu àtt nit ñi ci dëgg mu yemale itam li ñu naan azakaat nga xam ne ni ko bàyyi lay jàngalee taxuñoo jóg lu am solo la nit ñi réere mahdi yu moomu nga xam ne boo xoolee kullu kalimaatihi kullu xarakaatihi kaana a la ala dunia xaqan ala naasi ajmain bàyyi lay bépp yëngu-yëngu bu mu mas a def jéego bu mu mas a def doxalin bi mu mës a def rek da nga gis ne zéro faute la moo tax waxoon naa ni mën man lazi jaala saadaati qawmihi yusaari'uuna ila kalimaatihi wa diinihi bay lay boo duggee ci këram dangay fekk ay wàll yu pur yoo xam ne def nañu ay kiraama nit ñi gis bu ma ci doon tudd tey duma fi jóg waaye ñëpp ndey dañu tekki woon seen ndombalu tànk wilaaya ak seen xutbu ak seen xawsu jébbal bàyyi laay nekk yawa xam nga lu tax raaw tuhrahu dañu gisoon ne dafa laab ci lépp waaye fatuhu ñu gisoon moo gën a woyof ñëpp wa sujaatuhu ñu gis njàmbaaram ci bu fekkee ne nit ki dafa bëgg bokkaale nga xam ngeen ne bàyyi laay ci péncëb lébu la feeñ waaye rawatina ci askan woo xam ne am na lu ñu baaxoo woon woykat yi woy nañu ko léegi ci tuur yaag xàmba ya mu ñëw fël ko raxas ko waaye boole kaak fitam wa amaanatuhu maanu ba wa aqluhu xelam bu set ba wa bayaanuhu làmmiñam bu set ba moom Seydina Limaam mag ñi bi ñu gisee lii rek dañu tekki seeni ndombalu tànk wilaaya ak xutbu rot si ci moom moo tax benn woykat libaas ñang ba tey dane ko xam naa ci say jikko ñetti téeméer yu dul jeex mu ne ko am nga kiraama sab mbaax rëy na ku lim juum rafet jikko muñ gu yaa xam-xam bu dul jeex yaatu taaru tabe maandu am diine amu leer nii la bàyyi lay Eh, dunde woote signalé ñetti fan ya ñetti weer ya ñetti at ya coow la bari na mu déclaré nag Roholaye Issa mi nga xam ne nag mooy xalifaam Roholaye Issa mi nga xam ne ca 9 la wax ni lii may oote day nit ñaa ngi koy bañ nit ñaa ngi koy saboote nit ñaa ngi koy bëgg a màbb waaye dinaa dem bu sama dem jotee waaye lii ma yàlla jox nag ku ne sii moo koy mottali boobu mu ngi am 9 in lam yutimma risalallaahi arsalani haazal gulaamu yutimmuhu bila wahamin te boo demee ci benn téere bu ñu naan kaasiful albaas an faydatil xatmi abil abbas bu bàyyi ñas day wax ne Moustapha danaan la yudrikanna al masiixu min haadi l umma axwaaman innahum la mislukum aw xayrun minkum salaasa marrat yonent dafa toog ak saxaaba ni leen xanaa xamuloon ne Isa dina feeñ ànd ak seen njiit waaye nag ay umma bi muy feeñi xeet bi muy feeñi dañu leen di gën wala sax ñu mel ni yéen booba ma ngay siñaale ñeneen ñu dul arab sidina isaa di buntam kon sidina limaamu alayhi salaatu wassalaam damay wax ni bu ñu doon wax mbaaxam du ñu fa jóge ndax la xat ataahu llaahu min an umihi bil qadri allazi li xam li raayatihi yàlla dafa defoon ci moom loo xam ne boo ko nattee da gis ne kii attan na mën a yor ak dara pop limaamul mahdil muntazar kañ la ko oote woon ba mu jóge fi te xalifa boobu nga xam ne amaana boo moytul ci moom la ñuy tëjee moom mu doon wër di waare naan sama maam mooy max mahdil muntazar ñu naan seetaan leen ko léegi mu génn àddina tey jii mu ngi toog ci xilaafaam di muuñ muuñam bu neex ba di muuñ muuñam bu rafet ba yàlla na ñu ko yàlla fayal boor wallaay ndeysaan yàlla na fi yàgg te wéer Seydi Abdoulaye Thiaw Laye eh, mooy li ma wax rek sànq sama njëlbéenu émission eh, li Abass wax dëgg la bi muy wër dëkk bi di ko wax yàgg na mhm. na waaye yàlla boole ko ci kënuñu lislaam li boobu toogagul tey boole ñaari xilaafa man dama naan ñaari xilaafa la boole ndax dafa boole xilaaf ak seen imaam boole xilaaf ak seen Isaa baayam te bi muy doxal loolu di génn dëkk bi dafa wax na ko Touba wax na ko Njaasaan wax na ko Medina Baay wax na ko Tiwaawan wax na ko fu ne tey gis ngeen bi mu toogee ba tey dañuy wax jeex na boobu ba tey kenn déggatul lu bàyyi Abdoulaye Diawlaay ubbi gémmiñam gu wax ko jëmale kon jëf moo fi des xanaa rek di ñaanal njabootu Seynaa imaam Allaahi yi fi nekk di ci jiital eh, eh, imaam eh, imaam Mouhamadul Mokhtar suma soppee boobu yàlla yàlla sàmm ko te dooleel ko di ci teg Baye Njiin moom tamit yàlla dooleel ko te sàmm ko di ci di jaar noonu di di jaar xam imaam Bachir ak euh, Seydina Mouhamadou Lamine moom tamit di jàmbaar moom itam di jàmbaar ak njabootug Seydina Imaamullahi yëpp ndax tey bu ñu xoolee mën nañu wax ni euh, Seydina Limaamu ba tey ay soldaaram ak i jëwrinam ñoo ngi taxaw di doxal axlulaay loolu du fay ndax dëgg bi yàlla la xul jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa gis nga sëñ buur xaqiiqa la ajam doon wër xaqiiqa boobu ñu tëmbal ko ci géeju charia mag ñi ut ay gaalu tariixa tëmb ci géej gi di wuti xaqiiqa moom ngay dégg suñu maam Maodo Maodo malik ku baax ka macha allah mu ne damay branché ci centrale bu mag bi dawal sama gaal ci géeju charia mu indi ay abiyaat wax ci mbaaxu Moustapha noonu itam suñu maam Serigne Touba noonu itam suñu maam Cheikh Sadou Abi noonu itam suñu maam Baye Niass ñépp bëgg a uti xaqiqa limaamul mahdil muntazar mu ne leen maa ngi ci géeju charia ku ne branché na ci leeru Moustapha tagg nga way nga man duma tagg xamaluñ ma tagg yellul ci man may tagg kenn ndax la woon fa démb mooy li fi nekk tey te dëgg jii nag dina wey ñenn ñi courant bii dawal seen gaal mooy branchement bi ñu branché ci Moustapha moom ngay dégg Maodo naan inna al awalima aaliyaha wa saafilaha asiqatun talaat min afdali nasam sëriñ tubaa ne kooku lahu siyaada lahul baraa yowma alastu wala da safaa huwa nabiyu wa rasul wal xalil wal habib wal imam wal dalil bàyyi laay nag ne sama branchement bi day tàkk te du fay yàlla préparel na préparel na ma ñoo xam ne ñooy taxu mu signalé Roowalaay Issa waaye itam signalé Abdoulaye ba ca Abdoulaye ba moo tax sëñ ma ne ko bashara bikal mahdi muxbiran annahu yaatina abdul ilahi mukarraman ba tey damay ñëw ci li tax taal bi fayul dañu bégale woon ci sëñ Abdoulaye bu ñëwee dina xam taal bi ba mu gën a xam dina ko taal ba mu gën a yaañ ma ne ko mahdi yi moo ñu bégale woon ci sa ñëw waaye ba nga ñëwee bégal nga ñu ma ne ko aw fayta sifaata wal axlaaqa ya abdallahi yaa dal maratibil ula melokaani ki jikko yu tedd yi la doon xaare matal nga ko yaay borom martaba yu kawe yi waaye aadilan ak a maandu wax nga ko sànq këru diine yi ibnu na sono fépp macha allah lay dugg zahidan ku dëddu àddina waaye nag aaliman ku bëri xam-xam raafi an liwaa ad daawatil mahdi muntazara mooy ki ñu yëkkatil drapeau ooteb mahdi mi ñu doon xaar ba tey la mu jàngale woon sët yaa ngi koy jàngale sët yooyu ñoo koy jàngale dëggab yàlla bi yàlla téye ko ndax bàyyi laay ci ci ci ci kori bii la taxawoon mu xaddam yi taxaw ñépp a taxaw mu ne leen sama loxo ngi nii képp kuy yóbbanti Seydina Muhammad tegal dërëm bi ci sama loxo bu ñu demee boo gisee gis Muhammad ma joxal la ko boo gisul Muhammad nag jàppal ni jox nga dërëm bi ki nga ko war a jox ci bésu kori bii la amoon. hakasa yakun am na solo. xanaa rek euh, ba tey rek di jaar di jël sunu sunu ziar di jël ziar réew mi di ko teg ci loxo xalifa tedd boobu nga xam ne damay wax ni moom rek ngay dugg këram ci réew mi. Mm-hmm. fekk fa Cheikh Abdou Lahat mm-hmm. fekk fa sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma fekk fa Cheikh na Tijani fekk fa El Hadj Ibou te loolu dëgg-dëgg day woon nekk dëgg-dëgg mooy mhm. xalifatul muslimin mhm. xanaa rek li ñuy def rek mooy bàyyi leen rek Seydina Abbas mhm. ngeen tàggoo tàggoo bu dul tàggoo ñu tëjee zikrullahi rek bu ko defee rek mën a cee ndokkeel ñi nga xam ne mooy suñu mbokki internet macha allah jaajëfal la bu baax a baax waaye itam jaajëfal limaamul mahdil muntazar mi fi indi programme bu rëy boo xam ne boo ko nattee da gis ne lépp a sell na lépp a tedd na xarfal liir may liir jëkkër sikkar ba xol tooy kàbbar julli sarabana sëlmal tudde yàlla julli ci seyduna muhammadu rasulullaahi nuyoo laahi wuyoo laahi gaaw a dem sa jàkka ja programme bàyyi laay ngi nii buur gis nga maadiyu buy ñëw dafay ànd ak ñeent dañu koy déclaré te maadiyu mii doomi Alassane Coumba Ndoye déclaré nañu ko ba mu ñëwee zéro faute ba ñu nattee ay jikkoom gisuñu lenn loo xam ne mën nañ ko tuumaal ñetteel bi mooy mujizaat yi mu fi def te siiw lool waaye ba ci gën a siiw mooy ba mu randal géej mu ngi def ay kiraama waaw kooku beneen affaire ndax wa innahu la ilmu li saa fala tamtarunna biha la waxoon moom Seydina Isa màndarga la ci saa bu ñu werante ci moom ah, leneen li nag moom mooy programme bi mu teg programme bi mu teg nag al wal ixaay wal mahabba benn le bi nga xam ne bàyyi laay def na ko ci réew mi def ko ci àddina bi askan yépp mu dàq ko man mii di wax ak yow xaal pulaar laa samay maam ay sàmmkat lañu bàyyi la ñu doon sàmm ñëw rot si ci limaamu nekk yow a kon itixaat ixaay wal mahabba moom la bàyyi laay def ci kër gi nga xam ne njàngale boobu bu fa yemoon rek doy na sëkk kon yàlla nañu yàlla fayal Seydina Limaamu jaajëfal naa équipe bi jaajëfal buur allahumma salli ala sayyidina waaw ilaha illallah momo doy limaamu laay la ilaha illallah muhammadu rasul la ilaha illallah momo doy limaamu laay الإمام العالم أنت سيدي أولين سيدنا الإمام العالم أنت سيدي مرسلين سيدنا الإمام العالم أنت سيدي أولين سيدنا الإمام العالم أنت سيدي المرسلين بالله يا يقول لنا لا إله إلا الله lu nan ni mooma ku ka ni mooma ah. ñun de woolu nan ni mooma waaw ku ka bañ al ko mooma mooma doyle maama bilaay aljanna ngi xaar di saylala ay wolu maam li maamu safara ngi xaar di foolo ay weddi maam li laayi ajana ngi xaar di sañse gaay wolu maam li maamu safara ngi xaar di foolo gaay weddi maam li laayi rowalaayi ñëw la seydina wutuñin ak beleyaam dem ñawaat tas jëmam ja ngir dëggal maam lay ruu lay ñëw na seede la wutuñin ak dem ñawaat tas jëmam ja ngir dëggal maam bilay abdoulaye bi baye abdoulaye abdoulaye bi baye Abdoulaye ba mi si di roowalaay yow ku nga gëm-gëm nga baay laay waajëmal maam bilaay Abdoulaye bi baay Abdoulaye ba mi si di roowalaay ku nga gëm-gëm na baay laay maam Seex laay sa baay ku nga gëm-gëm nga baay laay Allaaje ite sa baay ku nga gëm-gëm na baay laay moo jëmal maam baay Abdoulaye sunu xol yi ñoo ko wóolu sunu cër yi ñoo ko wóolu moo jëmal maam li